لأن الحديث السادس والثلاثون حديث fanweer ak juróom-benn wala nga ne fanweereelu xadiis ak juróom-benn leen an abi hurayrata leen nañ ci suñ sang abu hurayrata radiyallahu anhu mm-hmm. yal na ko yàlla gërëm mm. ak mbooleem saxaaba yi amin an nabii mm. jëlee ci yonent yàlla muhammad mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mm-hmm. qaala mm. suñu sang bi sallallahu alayhi wa sallam de man nafasa bu génnee hmm. an muminin hmm. ci ab jullit hmm. kurbatan njàqare min kurabi dunia ci njàqare àdduna nafasallahu yàlla génnee anhu ci kookee def loolu kurbatan njàqare bil bi yawmil qiyaamati ci jaxare yawmil qiyaamati mm-hmm. Mm-hmm. al kurbatu mm-hmm. mooy lépp loo xam ne dafa dana jaaxal nit dana tax mu nekk ci xat-xat loolu nag xat-xat boobu nag suñ koy génnee mm. dafay mel ni da koo nooyuloo wala nëfës wala ni yow yaa ubbi fu mu nooyee mm-hmm. xabaatu nëf ak tanfiis mm-hmm. dafa am relation ak nëfësu waaw mm-hmm. am sax relation ak nëfsu nit ki dana toll koo xam ne day mel ni tuddatut sax ki ko ci génnee mel na ni ko ko joxaat bakkanam sax hmm? njaaxare àdduna bëri na hmm. léeg-léeg mu nekk njaaxare bu aju ci nit ak wér gu yaramam hmm. léeg-léeg mu nekk njaaxare bu aju ci nit ak njabootam hmm. léeg-léeg mu nekk njaaxare bu aju ci nit ak xalalam njaaxare gi gën a rëy te gën a doy waar nag mooy njaaxare bu aju ci diine su fekkee daf ko réeree ñu xamal ko ko hmm. su fekkee daf caa gàttañ lu nag hmm. baa mu am ca nattu hmm. ba mënu caa def am wareem mbaa yitteem yeggu ca ñu ko nattu yëpp nattu bu diine ci gën a métti ñu ci àll bu benn nit xam te du jëfee mbaa mu réer te du jëf mm-hmm. mbaa mu réer tey mm-hmm. te xam tey jëfee rekk mm-hmm. ki xam te jëfeewut moom musiba moo gën a métti ndax dafa mel ni dafay sawooti yàlla xam na li yàlla bëgg ba pare ne waa tey def moom réer tey jëf it kenn gënu ko sonn ndax bés bu set mu jëf foog ni mu ngi def lu neex yàlla te mën naa mu ngi def lu naqari problème bu mu ne hmm. nga xam ne yowmal qiyaamati hmm. dafa la problème yu ëppee hmm. yàlla am ko fay xaar pour xettali ko ci problème yowmal qiyaamati yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba muy wax juróom-ñaar yi xaar ab jaam te jaam bi war a jàkkante ñoom te def baax moom ca mujj wax mooy wasaa aw saata moo ndax da ngeen di xaar ba suuf ji wasaatu adaha wa amar bas koy ci gën a wex bas koy ci gën a jombale moo gën a wex waxu na ko bu mucc mucc na ba faw ndax problème yi àdduna bari nañ de waaye boo leen tollulee problème yi àllaaxira mm. nga xam ne problème yi àdduna dootul ko dara mm. kon nag ki xeetali kenn fii di mm. ko yàlla dencal moo ëpp téeméeri yu ne moom mm-hmm. li mu def mm-hmm. ndax kiñ def moom ci tolluwaayam rek lay def mm-hmm. yàlla yi def ci tolluwaayam bu wàllu tolluwaayu yàlla ak jàmm wal nafasa wal nafasa mooy chaddu faal ku xettali hmm. ku génnee hmm. ku yaatalal hmm. ku muccal al muminin ab jullit kurbatan maanaam nga génnee ci ab jullit kurbatan njàqare mooy ni njàqare fa neewoon ci biir jullit bi nga ko wal nafasa ku génnee al mumin ci jullit kurbatan njàqare min kurabi dunia ci njàqare yaa ñoom njàqare àdduna lañ nafasa xettali hmm. muccal hmm. génnee hmm. allahu yàlla anu ci moom kurbatan njàqare min kurabi yawmil qiyamati ci njàqare yow yawmul qiyamati kon sama téere bi yawmal qiyamati waaye yow mi la war a doon waman yassara ku jàppandal ala mucsirin ci aji ñàkk mooy ku ne ci jafe-jafe yassara jàppandallaahu yàlla alayhi ci moom ci duniyee ci àdduna wal axirati ak ci àllaaxira ku jàppandalal koo xam ne dafa nekk ci jafe-jafe wa man yassara ku jàppandal ala mucsirin ci ku ne ci jafe ci borom jafe-jafe ay bii jasaar yi ala mucsirin ci borom jafe-jafe ñaareel ku amut lañ koy tuddee waaye ba daa nekk alhamdulillah jafe-jafe bu mënta doon li yàlla ne wa in kaana du usratin fa nawiratun ila wala ila maysaratin fekkee ne kii xame bor bi dafa am jafe-jafe yi fay danañ ko xaaral dañ ko muñal ba mu mën dañ ko muñal ba mu mën képp koo xam ne nag muñal nga hmm. ko am jafe-jafe ba mu mën mbaa hmm. fekk nga ku am jafe-jafe nga eh, dégg nga yombalal ko jafe-jafe ba hmm. nee na sama borom dencal na la ñaari fay bu njëkk bi mooy dana la yombalal say mbir ci àdduna ñaareel bi dana la yombalal say mbir ci àllaax kon mhm. tudd nañu ñaar tudd nañu yowmal qiyaamati tudd na laaxee te ñaar yi benn la yowmal qiyaamati wala ñett yëpp a tax yàlla tuddee ko yowmal qiyaamati bu njëkk bi mooy bés taxaw la ndax ci la bés ci di taxaw wa taqumu saatu ngay jëlee ñu ne sax ëpp na ñett mën naa ñeental ndax ci la bés bi ci li taxaw a bi danañ ko tuddee yowmul qiyaamati ndax ci la ñëpp di jóg ci seen bàmmeel yi loolu qiyaamatu la yawma yaqumu naasu rabbil aalamiin ñëpp koy jóg ci seen bàmmeel mm-hmm. yi ñu mm-hmm. ko tuddee yowmal qiyaamati mm-hmm. ndax keroog ci la seede yëpp di taxaw ñeel jàmm bi mbaa waral jàmm bi ñeel ko mooy seede pour moom waral ko mooy seede contre moom wa tashhadu alayhim وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا kon bés bi bés la boo xam ne ci la seede yi di taxaw sama borom wax na ne innaa lananṣuru rusulanaa alladina amanu fi lxayaati dunia wa yowma yaqumuuna ashhad ñun day ñuy dimbale suñu yonent yi hmm. ak ñi gëm yàlla hmm. ci dundum àdduna bi hmm. ak bés ba seede yi danañ taxaw kon dundee nañ ko yowmal qiyaamati ndax keroog la seede yi di taxaw dundee nañ ko yowmal qiyaamati ngir bés la boo xam ne ci la ñuy taxawalu mandu mm-hmm. mandu dëkk yowmal qiyaamati la wa wa nadau lmawasina alqista mm-hmm. yowm alqiyaamati mm-hmm. falaa tuzlamu nafsun shay'an mu ne nag képp koo xam ne jàppandalal nga ku borom jafe-jafe hmm. yàlla jàppandalal la hmm. ci àdduna jàppandalal la ci àllaaxira hmm. ñaari nag niroo nañ waaye wute nañ xam nga ki la génnee ci problème génne na la ci am waaye ki génnee ci problème ba pare jàpp jox la ci loo jàpp kooku ñaari yëpp la def moo tax moom ne ci génnee ak jullit ci ak jafe-jafe hmm. yàlla dana ko génnee ci jafe-jafe hmm. ci jafe-jafe yowal qiyaama hmm. waaye mu ne ku jàppandalal ak jullit nag yàlla dana ko nag jàppandalal ci àdduna ak ci àllaaxira xam nga ku njëkk bi àllaaxira rek la tudd kii ku ku ñaareel gi nag ñaareel la tudd ndax ku ñaareel gi dafa mel ni lim def moo gën a bari moom dafa laa fekk ci problème non seulement mu génnee la ca mhm. waaye moom la ca génnee yi daf laa dugal ci feneen mhm. waaw ki la fekk nga nekk euh, ci xat-xat mhm. dégg nga am ñoo xam ne yaa ngi joteeg ñoom wala nga nekk ci loxo yu yoon mu génnee la ca mu génnee la ci njàqare waaye ki génnee ci loolu yoroo dara mu daal di jël lu bari jox la hmm. mbaa mu dugal la foo xam ne da nga ko mën a defee loo bëgg a def hmm. kooku jàppandaral la hmm. seetlu ko wa man yassara ala muhsinin képp koo xam ne yombalal na ku ne yombalal na borom jafe-jafe yassara allahu alayhi yàlla yombalal ko fi dunia ci àdduna la wal axirati ak ci xalaat wa man satara képp ku suturaal la mm. musliman ak jullit mm. satarahu waahu mm. yàlla suturaal ko fi dunyee ci àdduna wala axirati ak ci alaxira mm-hmm. suturaal mooy nëbbañ mm-hmm. Mm-hmm. fekk ab jullit boo xam ne la muy def ak la muy toggoo lu dees na ayibal ko la hmm. moo xam jikko bañu bañ nanguwut ko hmm. ak mbañ rus hmm. wala diine tere na ko jikko nanguwut ko mbañ rus nanguwut ko rafetut ci aada ba rafetut ci diine waaye nga suturaal ko képp koo xam ne def nga lii nee kookee yàlla dana ko suturaal hmm. satarahu llaahu yàlla dana suturaal kooka hmm. fi dunia ci àdduna hmm. wal axirati ak ci àllaaxira loolu nag am na ay euh, fasale am na détail danañ ci dikk ci njëriñ ah ñu war suturaal ak ki nga xam ne waree su suturaal ki xam ne la muy def hmm. digganteem ak yàlla rek la xem hmm. kooku mën nañ ko suturaal hmm. fekkee yow muy def nag mën laal xaqi keneen kooku am na tàqale ndax yaa ngi koy suturaal di tooñ xaqi keneen waaw kuy jël yëfu jàmbur nga di ko suturaal yaa ngi koy dimbale ci tooñ waaw yàlla suñu borom hmm. subhaanahu wa taala hmm. fii awnil abdi hmm. mi ci ndimbalu jaam bi maa kaana féet nekk na al abdu jaam bi fii awni axiihi ci ndimbalal mbokk tant yaa ngi dimbale sa mbokk jullit sa mbokkam jaam jullit la sax wala du jullit tànk yaa ngi ci loolu hmm. yàllaa ngi sa dimbal hmm. xanaa yàlla du dëj di la dimbale mukk hmm. tànk yaa ngi dimbale sa mbokki jaam ndax moom rekk mën a dimbale su la gisee nag ngay góorgóorlu ci li nga mën yow mu xamal la leen awni mm-hmm. waaye maa kaana al abdu mm-hmm. fi awni axiihi mm-hmm. la la doon te maa kaana al abdu nag moo gën a yaatu maa daama al abdu ndax boo ne maa daama al abdu li muy firi mooy fëkk saxoo ci di dimbale jaam bi yàlla du dimbale waaye boo ne maa kaana al abdu mooy ndegam yaa ngi dimbale rek moo mm-hmm. xam sax nga ci wala saxoo ci yàlla dana dimbale maadaama mm-hmm. dafa jafe mm-hmm. dawaamul aw ji loolu dafa jafe ko ko mën moo tax al abdu moo gën maa al abdu fii awni axi loolu wa man salaka képp ku sóobu tariqan yaltamisu hmm. wow dana sàkku hmm. fii ca moom yoon wa hmm. ilman xam-xam sahalallaahu jàppandal yàlla loo ñeel ko bihii ci xam-xam ba bihii ci sababu suubu gëm suubu yoonu xam-xam yàlla dana ko ca jàppandalee tariqanaaw yoon ilal jannati wu ko yóbbu aljanna hmm. dañu ko yàlla defal hmm? Hmm. képp koo xam ne dugg na ci yoon sóobu ca di ci dox te dara yëkkatiwul ko lu dul sàkku xam-xam yàlla it ngir fonk gi fonk xam-xam dana ca ubbilee yoon yombalal waa jooje baa soosee jaar ca ba tàggaat ca kon nag mën nañ caa déggee lu bëri hmm. dana ko yombalal yoon hmm. mooy dana ko yombalal yoonu hidaayatu tawfiq hmm. bi tariqi ilal jannati loolu nag buñ ne xam-xam rek jooyoon ko xam-xamu sharia tax xam-xam bu yàllaa tax ak lépp loo xam ni dana dimbalee jàmm ci xam-xam yooyu loo xam lu uloomu uloomu lugal arabiya la wala mm-hmm. uloomu taarix la mm-hmm. waaw mm-hmm. Hmm? su fekkee uloomu dunyawiyati it te ki koy xamlu gannaaw bu mu xamloo diine baa mu boole ko xamlu diine mi ngi koy xamlu ngir jëriñ ci jaam yi mi ngi koy xamlu ngir jëriñ ci jaami yàlla yi kooku dana ca dugg su fekkee lu nga rek a mu di xam muy xam lu xam xam yooyu mm. a rek la cay am mm. mm. innama al amalu niyaati wa innama li kulli imriin ma nawa ku nekk la nga xéene rek nga am lu noonu képp koo xam ne soobu nga aw yoon mm. ca wut xam-xam mm. yàlla yombalal law yoon mm-hmm. ca sababu xam-xam ga mm-hmm. mooy bihi wala ci sababu sóobu ga mm-hmm. aw yoon wu jëm aljanna aljanna mooy kër gi yàlla préparel ay xejjam mooy ay awliyaa oom yàlla ci boole doon tu wax na ne mm. sallallahu alayhi wa nekk na fa loo xam ne bës mosu bët mosu koo gis hmm. donc mosu koo dégg hmm. mosu ta toq ci xolub jaam hmm. mosu ta toq ci xolub jaam am na ku mos a laaj ci aarifine yi mellal ñu xal janna mu ne fiiha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sif lana aljannata mellal ñu xal janna mu ne alayhi salaatu wasalaam doy na neex doy rafet doy na tedd doy kawe xanaa baal janna li muy neex neex li muy kawe kawe nekkub yonentu ak ci barke yonentu la ko xamee sallallahu alayhi mm-hmm. wa sallam mm-hmm. wa majtamaa loolu nga teg wa majtamaa du dajee qawmun aw nit mm. fii baytin ci néeg min mm. buyutillaahi mm. ci néegi yàlla yi mm. illa ah, dégg nga na maanaam maa gi maawum naafiya la hmm? maawum naafiya la li koy tegtal mooy illa gay ñëw ca kanam di saxal wa majtamaa du dajee xaw mun aw nit fii baytin ci néeg min buyootillaahi ci néegi yàlla yi hmm. yatloo na jàng hmm. alhamdulillah kitaaballahi téeréb hmm. yàlla bi kii alquran ñu koy jàng moo xam jàngum baat la ni ñu doon def sànq ba jàngum maanaa la ni ñu koy firi ñu firi alquran wa yatadaarasuunahu te ñu koy jàngalante baynahum seen diggante hmm? wayata wala wayata daara suunahu te ñu koy jàngante baynahum seen diggante kii jàng ñeneen ñi déglu walla ñoom ñëpp ñuy jàngandoo yii du dajee hmm. wala yii du am hmm. aw nit duñ dajee di def yii mm-hmm. illa nazalat mm-hmm. lu dul wàcc na mm-hmm. alayhim ci ñoom assakinatu dal mooy dalu xol ak yaatub dënn assakinatu muy dalu xol ak yaatub dënn ndax tudd yàlla ci la xol di dalee te tudd yàlla mm. ci gën a kawe mm. mooy waxi yàlla mm-hmm. ala bi dikrillaahi mm. tatma innul qulub mm-hmm. te dikkar yëpp alquran a ci gën a kawe mm-hmm. buñ ne al dikru mooy alquran inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xafidun yeneen yëpp nag dikr lañ alkaar lañ waaye al al dikru min alif wallaahi ko alquran wa in kaadu la yasliquunaka bi absarihim lamma samicu dikra wa yaquluuna innahu la majnun wa ma huwa illa dikrun lil alamin ko alquran wa man yacshu can dikri rahman ko alquran qayid lahu shaytaanan fa huwa lahu qarin wa ma wa ma jtamaa du dajee wala wa ma jtamaa dajeewut qawmun nit fii baytin ci jàkka min buyootillaahi ci jàkka yàlla yi yatluuna ñuy jàng kitaaballaahi téeréb yàlla bi ki alquran wa yatadaarasuunahu te ñu di ko jàngante baynahum ci seen diggante illaa nazalat hmm. lu dul wàcc na alayhim ci ñoom hmm. assakinatu hmm. dal gi wa ghachiyathum dikkal leen arrahmatu yërmande wala wa ghachiyathum muur leen arrahmatu yërmande yàlla wa xaffathum peeg leen wër leen almalaaikatu malaaka yi ngir di leen teral mm-hmm. wala ngir teral leen mm-hmm. eh, mm-hmm. dañuy wax ne wa inda dikri saalihiina tatanazzalu rahma foo tuddee ju baax ñi yëg man ne yàlla wàcc waaw foo tuddee yàlla na ko eh? rawatina nga tudd ko ak alxuraan bi mu wàccee nga xam ne melo la ci moom wa taala waxam wa xafathum te feeg leen ak malaayikatu mm. am na malaaka yoo xam ne buñ mm. toll dañuy wër mm. bu ñu séenee géew ñuy tudd yàlla ñu daal di woowante di liñ doon war a nii ba tey yonentu sallallahu alayhi wa sallam ngeen rombatee tool yi dari aljanna na mm-hmm. ne ko luy tool yi dari aljanna ngirum mm-hmm. tudd yàlla mm-hmm. wa xafathum te peeg leen mm-hmm. al malaayikatu malaaka yi ngir teral leen malaayikullahi laazimtum min al kurama xafat bi jamcikum bi tuuba liman xamam wala xafat bi jamcihim tuuba liman xamam wa dakarahum te tudd leen allahu yàlla hmm. fii man indahu ca ne fa moom hmm. waaye ñii dajee ci jàkka di hmm. jàng alquran di ko jàngalante yàlla dana leen tudd te bu leen di tudd yi daf leen tudd ca mala'u ba ne ca moom ndax wax na ci xadiisu qudsi xadiis jaam ci buxaari ci téeréen tawxiid ci waxi yàlla jim naan wa yuxadirukum allahu nafsa tudd na it ci muslim kitaabu dikri wa duaai wa tawbati wal istixfaari ci baabu alxaf ala dikrillah taala buntu bi muy ñaaxee nit ñi jaam ñi ñu tudd yàlla xadisu xudsi ñëw na fa sama borom ne man zakarani ku ma tudd fi malayi ci mbooloo zakartuhu ma tudd ko fii mala in ci mbooloo xayrin minhum mu gën mbooloo moom ma tuddee yaa ngi tudd yàlla ci mbooloo fii ci suuf yàlla tudd na ci malawu ba nga xam ne yàlla ci xadaraam ba tedd ba fu tedd yem waaw seetal seetal ñaari tudd yi waaw seetal ñaari tudd yi mm-hmm. moo tax tudd yàlla dara melul ni moom mm-hmm. te mooy jaamu yàlla gi gën a yomb nag mm-hmm. waaw du yàlla dara melul ni moom mm-hmm. mm-hmm. ci nag ni ah yàlla ni mu yombee ku lépp lu aju ci loolu ci lu baax mm-hmm. wa man bataa loolu nga teg mm-hmm. mm-hmm. képp ku yéexeel ku yéexeel wa man bataa ku yéexal bii ci moom amaluhu jëfam lam yusbix du gaawal bii ci moom nasabuhu askanam képp koo xam ne jëf ju baax yéexal na ko askan wu tedd du ko kaw du ko gaawal maanaam yëf yi hmm. newul ci foo bokk hmm. mi ngi ci noo mel hmm. képp ku jëf ju baax tardeel wala képp ku jëf tardeel mën naa am sax jëf ju bon jëf ju baax tardeel la koo def jëf ju bon tardeel la mooy nga def ko ku jëfam tardeel Mm-hmm. ku jëfam suufeel mm. askanam du ko kawel mm-hmm. ku jëfam ndawal mm. askanam du ko ragatal mm-hmm. du ko yit du ko rëyal ku jëfam ñaawal mm. askanam du ko ragatal ku jëfam bonal askanam du ko baaxal ku jëfam toroxal askanam du ko teddal yàlla seetul askan inna akramakum naka gën caa tedd ci yéen indallahi fa yàlla atqaakum mooy gën ca ragal yàlla ci yéen ku la gën a ragal moo la gën ku gën a ragal moo la gën ndax askan fa idaa nufixa fi suuri falaa ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluun askan fii la yem yàlla nee na bu ñu walee bu su buftu bi waaw kenn duñ la dootuñ laajati kenn foofu bokk na noo meloon rek ñi nga bokkaloon sax ba leen di gis di daw ma yafirul mar'u min axiihi wa ummihi wa abiihi hmm. wa saahibatihi wa baniihi hmm. li kulli imri'in minhum yawma idin sha'nun yughniihi hmm. te eh, Seydina Ibrahim yàlla dana nettali ci làmmeñam ci sooratu Ibrahim mu ne faman tabi'anii fa innahu minnii Hmm. ku ma topp rek hmm. ci mën nga bokk hmm. kon ni ñuy askanoo ci ñu baax ñi mooy mel ni ñoom rek ni ñuy askanoo ci ñu baax ñi mooy mel ni ñoom rek waaye askan lu mu rëy rëy su borom baaxut du ko jëriñ dara su borom baaxee nag askan wi dana jëriñ ndax walladina amanu tabaatuhum dhurriyatuhum bi imaanin alxaqnaa bihim أقلامهم ذريتي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بلا نيخي بإيمان ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم وما ألتناهم من عملهم من شيء foofu la askan di jëlee waaw sa baay baax na nga jéem topp ay tànkam soo mel na meloon it hmm. yàlla yéegal la hmm. ci maqaama hmm. wa ma alannaahu min amalihim min shay fa man tabiani fa innahu salmaanu minna ahlal bayti salmaan ci ñun bokk ñun ahlul bayti te salmaan da ca Paris Abu Lahab mi bokk ak baayam benn baay yàlla eh, nga ñu ne ko ak jabaram ñëpp safara la jëm tabbat yadaa abii lahabin wa tabb maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasab hmm. sayaslaa naaran zaata lahab hmm. wa imra'atuhu hammaalatal hatab boo hmm. jàngee Hafs an Aasim na nga ne hammaalatal hatab fii jiidihaa hablum min masad xadis ji rawaahu muslimun mm-hmm. imaam muslim solo na ko mm-hmm. bi haada lafdi ci mm-hmm. bile baat ci buntu ci téereb zikr ak wa duaa ci buntu fadlul ijtimaai ala tilaawati alquraan wa ala zikr booloo jàng alquraan ak ci zikr xam na nag ñu koy bañ waaye xam naa ne dañ gisul xadis bi bu taxaw foofu su aljaamu ñu xuus ci njëriñ yi insha allahu taala hada sala allahu ala sayidina muhammadin wa mm-hmm. ala alihi wa sahbihi wa sallam amin amin